bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi dellu siwaat nanu tey ci sunu jotaay bi nuy faral di seq di ci jéema tontu ay laaj tey lu mat fukki laaj dikk nañu fi noo fas yéene jéem a yi laaj bu njëkk bi borom day wax ne jamono ji dañ cee seetlu daal ñàkkub yar yaatu ñàkk kersa yaatu ay ñaawteef bari lool mu joxe ci misaal ci wax yu ñaaw yi nit ñi ñeme ko Euh, ndaw ñi daanaka ku wax saaga ba ci mag ñi sax du saaga ak euh, ñaawteef yi rey ni ne nii ak ni mu ni yombe lu tuuti tuuti ak nit di ci jigéen ñi itam kersa ni ko ñu bari ñàkk ci ñoom ci wàllu col xam ne xeetu col yoo xam ne euh, bu yàggut lool kenn mos na xalaatu sol fii ci ci noonu ci réew mi waaye léegi ñu bari di sol col yi yéema yéeme yéeme yooyu daal la naan ndax mën na noo xam lu ko andi mooy lu ko waral lu sabab ak it lu ko fi mën a jële li ko sabab day sabab moom sabab day sabab dara loolu sabab leneen loolu moo tax léeg-léeg wax lu sabab nangam dana jafe waaye moom lu mën xew ñàkk a topp li nu sunu diine digal moom moom la rek bu dee ab yar xam nañ fu mu toll ci diine ak kersa eh, ak nag bakkan doomu aadama fi ko yàlla teg ni mu ko réyele kon yooyu yëpp ñàkk tënku ci rek la ñàkk tënku ci diine googu nag la koy waral moom mooy mooy am lu ko waral lu waral loola ba waaye xam naa yar bi kii daal yar bi yar bi nag am na lu am doole it nag loo xam ne moom lu wàll si la mooy fi ne nii li ñuy tuddee jumtukaayu tas xibaar yeeg xalaat yeeg xam-xam yi dafa am doole dañu am doole ci nit ñi lool rawatina bi internet bi amee ba mu amagut cinéma dañ laan jàmbat ginnaaw bi ñuy jàmbat télévision te nekk ci ba léegi nag ñoom ñu dolliku ci muy wàllu internet bi nit ñu bari lu ñuy faral di gis lu bari rek day dem ba woyof ci ñoom day dem ba ñeme ko te fekk gis lu bari gee ko waral ci réseaux sociaux yi ak film yi téléfilm yi loolu moom lu ci am am doole la loolu nag àddina ci àgg ba neexuta neexuta neexu fee jële waaye liñ man rek mooy jéem a yar njaboot gi bañ man koo të ndax yooyu yu am njëriñ na nga ca jéem a yar njaboot gi ba la cay njëriñ ñu mën koo jëriñoo la ca dul njëriñ ñu bàyyi ko loolu daal moo mën a nekk jafe na nag dëgg la waaye euh, lu jafe du tax ñu bàyyi ko dañ koy jéem rek àddina naka jekk noonu la naka jekk lu baax buñ koy digle nit ki da ciy jéem rek waaye du na day man lépp Euh, bu gënee jafe it du tax mu ne kon day bàyyi waaye day jéem tey rek ñaareelu laaj bi euh, day wax ne dafa am ku soxnaam am doom bisu ngénte li nag bis biñ bisu ngénte li bàyyi bàyyi bàyyi doom ji kon mooy maami liir bi daal daa dem ci koy tudd rek wax ko tur kii baay ji moom waxtaanu ceeg moom daal maam ji rek moo joxew tur ñu tudde ko ko muy laaj nag ndax loola sañ nañ ko soppi baay ji sañ naa soppi tur woowee baay ji moo am sañ-sañu joxe turu doomam kii baay wala kum ko may fii nag ci aada am na ñuy def noonu am na ñoo xam ne dañuy bàyyee seen bàyyi muy joxe seen tuuri doom am ñu koy bàyyee seen sëriñ nga xam ne ñoom duñ ko tànnal seen bopp loolu tam sañ nañ ko ndax seen sañ-sañ la kuñ ko joxe sañ nañ ko koo jox bu dee lu demee nii nag nga xam ne doom ji moom joxut loolu baayam waaye baayam ko defal boppam rek boobaa sañ na soppi tur waaye nag jar mën na ko bañ a jarit nag ndax tur moom bu dee turu rafet man jëlul soppi na ginnaaw bàyyi rawatina sa baay def ko nag bu ko ak jàmbur defoon ko ci yoonam nekkul sax mën nañ koo wax waaye sa baay nag moom bu tuddee sa doom turu rafet jërut nag soppi jëru ko sañ-sañ la dëgg la waaye ko nag ndax sañ-sañ it euh, rafet rafetal sa diggante ak sa baay na moom warugar la warugar la kon sa sañ-sañ bu naree jur euh, yàqtu warugar du ko jar mooy sa baay bu tudde sa doom ba noppi nga di ko soppi loolu mën naa yàq seen diggante te loolu nag jaru ko bu dee turu rafet ko tudde daal muy turi jullit yi nu xam boobaa bàyyi ko noonu dara néew ci bu fekkee nag daam koo yéenee tudde nga waxal ko ko bu ëllëgee nag ne ko ah bii kat da nga koo def waaye bu bu woon yàlla dogalee ma amaat doom biiw euh, laa ko bëgg a tudde waaw biiw noonu laa ci yéene woon waaye dañ ko fas def ba noppi rek moo tax waaye nag bu ma amaatoon bu ma yàlla dogalee ma amaat doom biiw laa ko yéene tudde loolu dara nekku ci kon sañ na ko waaye ndax jar na ko nag la ñuy wax ok ñetteel laaj bi borom day wax ne day def bu ndox ba noppi daal booy jóge fa jàpp ba noppi am luy toq ci ay ci yéreem am ñum ko laaj am ñu ne ko loolu dañ ko koy jéggal am ñu ne ko nag toog fa ngay tuure ndox ba lépp dañ mu jural ko nag coono boo xam ndax léeg-léeg dana fa toog lu yàgg neen lu mat waxtu sax te du bu demee itam loolu amaat léegi-léegi muy sonn ci di fóota ko fóotaat ak yu noonu waaw kooku de daa dugg ci ñi nga xam ne rek lu yàq njàpp day xewe ci ñoom ci anamuk wéradi anamuk wéradi moo xam tuur ndox la moo xam ngelawal moo xam leneen la sax lu ëpp loolu waaye yooyu kum dal liñ koy sant rek mooy na def kem kàttanam rek waaye bu ci ëppal nag maanaam bu tuuree ndox na toog tuuti rek loo xam ne euh, bu doon ku wér la lépp dina génn rek mu laabal mu laablu bu noppee euh, jàpp ba muy julli ba noppi nag lu fi mën di xewit bu mu ci bàyyi xel léeg-léeg nit day àgg foo xam ne sax mooy sikki sàkk rek waaye bootu sax dara génnut ci xelam la nekk rek moo xam kii sikki sàkk nag moo xam ku ko wor na mi ngi génn la waaye wàllu wéradee ko waral kooku bu xasee jàpp ba noppi ba ba muy julli ba noppi bu mu bàyyi xel dara lu mën di xalaat lu mën di yëg itam na julli ba noppi rek julleem dana baax dañ koy jéggal lu fa di xew ndax wéradi gi bu demee ba julli jotaat mu jàppaat rek saa bu demee ci wana wet mu def noonu rek toog diir bu yanu maana rek euh, bu noppee nag def li mu war a def bu julli jotee mu julli saa bu julli mu jàppaat rek loolu lañ koy sant kon buñ ko sant ne ko da ngay toog ba jeex toog boo xam ne xamul kañ lay jeex toog li mot waxtu ci woon ak loolu jël ko te mën naa jural nit sax euh, xeetu yore di ñeenteelu laaj bi boroom day wax ne dafa gis fi mu nekk bu fi nit tuubee dugg ci lislaam dañ koy taxawu ci mu soppi benn mën naa tànnal boppam weneen tur wala ñoom ñu tànnal ko tur muy laaj ndax loolu day lu munta ñàkk euh, du lu munta ñàkk de mën naa nekk nag waaye du lu munta ñàkk euh, fi muy mën a nekk it fi ko jar daal fi ko jare fi mu ko jare mooy boo xamee ne aw turam day tur woo xam ne ñu dul jullit ñi lañ ko gën a tuddee turu mel noonu ñi dul lañ ko gën a xame rawatina bu dee daana ci réewum jullit te tur ñu gën ñu koo xame ñi dul jullit boobaa mu weneen tur wuñ xame jullit ñi wuñ a xame jullit ñi loolu mën na koo jar mën na koo jar waaye bu dee tur woo xam ne loolu amu ca jaru ko te jëmmi tur wi itam firiwut firiwut lu ñaaw am na tur yoo xam ne moom dañuy firi lu ñaaw mooy dañuy firi rafetul tur woowu moom kuy door a tuuba ki nekkoon jullit naka jekk bu amee tur moom war noonu moom soppi ko soppi ko moo gën yonente bi daana soppi tur yu mel noonu ku ñëw yor tur woo xam ne dañuy firi rafetul mu soppi turam loolu ba nëgën itam lu jaadu la waaye bu dee tur yi li ñuy nekkul lu rafetul te nekkul tur wuñ gën a xamee ñi dul jullit boobaa jarul soppi jarul soppi bu fekkee nag dañ ko gën a xamee ñi dul jullit jar na soppi bu dee day firi jar na soppi fekkee nag ci réew yoo xam ne sax du réewu jullit moom booba tuur ya nga xam ne sax ñi dul jullit dañ ko fay tudd loolu ku tuub sax jarul mu koy soppi mu koy soppi lu mel ne ay Jean lu mel ne ay Claude lu mel ne ay euh, Robert lu mel ay Joseph yooyu ci Sénégal moom ku koy futu doon bay dugg ci diine ji mënees na ko soppi jar na ko waaye bu doon ci réew réew mu du réew jullit mën na koo bañ a jar mën na koo laaj bi rom dafa bëgg xam ndax li ñuy tuddee albaqiyatu saalihaat mooy ku julli ba noppi yooyu muy faral di wax mu ne ndax toftale kon leen ko miine ndax day waru gar wala ñàkk toftale gi du wàññi dara waru gar mooy firi lu war lu war mooy lu fa lu doon farata lu doon farata mooy loo xam ne bu ko nit bàyyee tay ko euh, day am bàkkaar day mooy yàlla loolu moom doonu ko doonu ko doonut warugar doonut farata toftale gi waaye nag moo gën moo gën ndax yonente bi bu koy bi koy tudd noonu la ko tudde te yeneen béréb yi ñuy tuddee yooyu yëpp itam noonu lañ leen di tegalee kon tegal tegalee kon noonu moo gën waaye duñu wax ne warugar la duñu wax ne farata la waaye nag moo gën lépp lu gën nag def ko moo gën def leneen Euh, rawatina ginnaaw moom loo ci def daa yo ñooyam amul amul lu ci ëpp coono jiital li ak mujj lii loo ci jiital loo ci bu fekkoon ne coono la coono benn la bu dee diir bi diir bi benn la kon la gën moo gën def la gën rek te mooy toftale kon niñ ko mën a toftale jiital subhanallah teg ci alhamdulillah teg ci allahu akbar teg ca la cay topp laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah da cay topp rek juróom-benneel laaj bi ko day wax ne dafa dégg fu wax ne de dee noddu nit di wax moom moomee di wax buy sukkuraat day yàgg wala day jafe am nu mu ko waxee daal muy laaj ndax loolu dafa ñëw ci alquran wala ci sunna su wér nu daal loolu de xaw ma ko alxuraan moom foog naa ne ñëwu ci moom ñëwu ci man la manees ko su wér itam jàppuñ ne ñëw na ci jàppuñ ne ñëw na loolu dafa lool am na sunna su ñuy gëstu xadis saxalut mooy nettali boo xam ne saxaluñ ko daal buy wax ne ku koy def buy génn àddina buñ koy sax baati seere yi muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bëgg mu mujj ci kàddoom bu ko mën a wax waaye loolee ñiy gëstu xadis saxaluñ ko euh, li wér daal mooy bu ñuy li gën ndax mooy liñ santaane mooy ñuy déglu kii nodd te di ko awo awo di ko toppandoo mooy bu waxee wax ñu waxaat ko ak anam gañ ko déglee daal loolal mooy lañ ca santaane kon mooy mooy la gën waaye ku ca waxit nag doonut sàkkantumaa nag mu rëy ba àgg ci buy génn àddina sukkaraatam di yàggooro di métti euh, kon li ci wér mooy loolu mooy di déglu kii noddu di baamu li muy wax euh, fa muy fa fañ la wax loo leen tam nga wax fa leen dañ la wax loo rek loola moo gën waaye ku ca wax ku wax ci biir nodd gi it nag euh, du du bàkkaar du bàkkaar du lu araam bu fekkee day wax ba noppi du tee mu def liñ ko digal bu waxe te def liñ ko digal sax du du du bàkkaar def maanaam nit di nodd nga bañ koo awu bañ di wax di wax bañ koy déglu nekk ci yitte bopp yeneen sax du bàkkaar eh, bay àgg nag ci kuy génn àddina sukkuraatam di ca mettee juróom ñaar laaj bi borom neen dafa bëgg a xam ndax dafa am xadis bu wér buy saxal ne way jëru yonent bi sallallahu alayhi wa du ñu dem àjjana am na ay xadis yu ñu saxal yuy wax luy firi loola waaye am na leneen ci lislaam it loo xam ne lañ ciy déggee mën naa wuuteeg loola yonent bi mas nay am na ku ma si ñëw di ko laaj ne ko ana sama baay am boo xam dañ ne dane ko ana sama yaay mu ne ko maga sawara mu xool ko gis ne daal mel na loolu diis na ci moom mu ne ko sa baay sama baay ña nga sawara wala mu ne ko sa yaay ak sama yaay ña nga sawara am na loolu nettal nañ ko te nit ñuy seggi xadis itam gisuñ ci luy te ñu jàppe ko lu wérut luy tax ko lu wér sax waaye alquran ñëw na ci lu bari na nag alquran di wax ne yàlla du mbugal kum yónniwut ci moom ab yonent wa ma kunna muazibina xatta nabasa rasula ak yeneen bi muy waxe ne bu ko yàlla defoon kon ñam ko def bu ëllëgee dinañ amoo lay bu yàlla mbugaloon te fekk yónniwut ci moom ak yonent bu ëllëgee kooka dana amoo lay ngir nit ñi bañ am lay nag moo tax yàlla di yónni yonente yi loolu ñëw na ci alxuraan tam ñëw na ci ne ñii ñu yónni yàlla yónent yàlla Muhammad fi mu wàcc te mooy ci arab yi ci xijaas googu moom mosuñ fi yónni ab yonent loolu lépp ku ko boole kon da nga naan ay waajuram kon mosuñoo yónni ci ñoom ab yonent ñooñu li ñuy tuddee ahlul fattara mooy ñi nga xam ne ab yonent ñëwul ci ñoom wootab yonent jotuñ ko jotuñ ko jàppe leen ca ñooña lu yanu la kon boobaa day mel ne ay nettali yu sax dañoo safaanoo ak lu nekk ci alquranul karim boobaa nag liy eh, liñ gën a xam mooy jiital li nekk ci alquran karim jàppe leen ci ñu bokk ci ahlul waaye li am solo lool it mooy yu mel noonu jërut di yittewoo daal ndax dëgg-dëgg bu doon ne loolaa amit amaloonu njariñ daal te it yonente daal jërut nag di xool ci moom eh, lu lu daal waaw jëru ko daal yonente bi daal li mooy wàllu yu wàll bi yoo xam da koy gën a matal rek moo gën mel na kuy xool wàll yoo xam da koy xaw a euh, suufeel ndax ay waajuram buñ nekkoon sawara xeetu kii la ci moom daal jëru ko daal teyit nag li gën a leer ci lislaam moom mooy ku yàlla yónniwut ci moom ak yonent ko mbugal ngir ndax boobaa day am lay bu ëllëgee man ko lu tax nga may teg lii tam amut ku ñëwoon ci man di ma wax li nga bëgg ak li nga bañ juróom ñetteelu laaj bi boroom dafa am laay bu mu laaj ab laaj bu ci aju muy laayay juróom fukkeel ak ñeent ci saaru albaqara yàlla di waxee ne وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فاقتلوا أنفسكم anfusakum ليلاتي وعمل lay laaj laaya ji dafa te wax ci li digaloon ña àndoon ak Seydina Muusa ginnaaw ba amee ci ñoom ñu toppoon nag woowee di ko jaamu ba loola jàllee nag yàlla di wax ci alquran di ko wax Seydina Muhammad ne ko na nga fàttali ci alquran wala na nga fàttaliku wala na nga le ba Moussa waxee nitam ña ne leen yéen kët da a tooñ seen bopp ni ngeen ko tooñe mooy di jaamu nag woowee muy sëll aw sëll léegi nag na ngeen tuub kon dellu ci seen boroom mi leen sàkk mi leen bind moom mooy yàlla ni ngeen di tuube nag mooy rey seen bopp rey seen bopp mooy ngeen reyante ngeen reyante wala ñenn ci yéen rey ñi ci des ndax nettali noonu la nañ lañ ko defee loolu lay firi ñi dañ ne ba ñi ñi ñi doon jaamu dañu féete ne ña doon jaamu sëllu ba ko jaamu doon féete ne ku nekk yor nga naa ñuy xeex ku rey moroom ja rey ko am ñu ne ñee dañu féete ne ñi féete ne ñu jox ñi xeexutoon ay ngànnaay ñi rey ña xeex eh, ñi jox ña jaamuwutoon sëlluwa ay gànnaay ñuy rey ña ko jaamu woon eh, lu mu ci mën di doon rek mooy kon rey googu daal la leen digal moom lañ def itam bañ nañu bare bare bare bare bare rey nañ leen te yàlla nag eh, jéggal leen kon faqatulu anfusakum jooju mooy loolu mooy rey leen seen bopp rey leen seen bopp mooy na ñenn ci yéen rey ña ca des wala reyante leen euh, loola fekk yi nag tuub giñ def ba noppi ñu ba noppi def loola yàlla nangul leen nangul ñañu rey ñu jàppe leen ñu euh, shahid ña rey itam mu nangul leen ñoom ndax moo leen ko digal teg ne yàlla nag mooy ci mën nangu tuub lool te mën a lool kon loolu euh, ndigal loon yàlla digaloon la rek ñu def ko ndax dañoo wax ne ña jaamu ña jaamu woon xërëm wa muy nag woowee sëll woowee ña des la leen teewoon wax tere leen ko mooy ragal buñ leen ko waxee ñu xeex ak ñoom xeex gañ doon ragal nag moo tax yàlla digal leen ko ne ko ne leen nañ ko def mu doon seenug tuub wala mbokk seenug tuub ñoom ñi nga xam ne jaamuwuñu woon ñu xeex ak ñi doon jaamu ki ragaloon xeex ñu ne ko xeexal mu mbokk sëg tuub ka doon jaamu moom kooka dafa weddi woon kooka manees na mbugalam mën naa nekk ñu rey ko moo tax juróom-ñeenteel laaj bi boroom day wax na li ñuy wax bene bene euh, ndax dañ ciy génne asaka buñ ko ci dee génne itam nu muy tollu asaka door cee war ndax ni euh, suuna di toll muy pepp dugub ndax noon lay toll asaka door cee war wala waaw li njëkk de mooy asaka dana ci war xëy na Sénégal moom mii nuñ woon di ci bay lu bari lu lu ñuy xalaate asaka waaye asaka dana ci war nu muy toll itam ba asaka war ci man nañ ko tollale ak ak ak dugub rek dugub muy suuna suuna nag noonu juróom ñaari bari ko genn wàll lañ jàpp ne moo moom la moom la noonu la noonu loolu lay toll asaka war ci kon lii ma mënees na koo jàppe noonu juróom-ñaari bërigo ak genn wàll eh, bu ko defee nag ginnaaw moom diw dañ koy def diw manes naa génne asaka ji ca diw ga manes na ko génne it ci pep mi ci boppam bu dee koo xam na koy daal daal def diw lépp mën naa bàyyi ba def ko diw génne ca mooy diw ga ba mu ko defee mu génne mu def ko fukki xaaj génne benn xaaj bi fukkeelu laaj bi te moo ci mujj boroom dafa bëgg xam maanaam yetti laaya yum andi ci saaru lukman muy laayay fukkeel ak juróom ñaar ak fukkeel ak juróom ñett ak fukkeel yàlla di waxe naan يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك inna ankara al aswaati la sawtul xamiir yàlla da ci nettali dénkaan yu luqmaan dénkoon doomam mi ngi ko tàmbalee ci la ko jiitu ci yi ko jiitu mi ngi tàmbalee ci laayey fukk ak ñett kon fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom fukk ñoo ko jiitu fukk ak juróom-ñaareel bi nag lii ci la bokk kon lii ci dénkaan yi la moo mujj daal ci dénkaan yi yàlla nettali ci sootu Luqmaan yi Luqmaan doon dénk doomam fii dane ko na ngay taxawal julli julli di dégl digle lu baax di tereb safaan te di muñ lu la dal nga muñ ko kii def loolu nee day wone ne ku am pasteef bu mag la ku amuk dogg gu mag la ne ko it bul di bul di tiitaru daal bul di tiitaru bul di tiitaru ba ba romb nit ñi doon na dooleen nangoo xool mel ne ku leen di wonug wet booy doxitam mel ne kuy wane titre ci saw doxin daal loolu bu ko def ndax yàlla bëggul kuy def loolu ku yëg boppam booy dox daal na nga na nga na doomu ci sab dox booy waxit na nga wàcce sa kàddu bul di wax ci kaw bu mopp ndax loola day nuru tey nuru kàddug mbaam te kàddug mbaam moo gën eh, moom lañ gën a bañ ci kàddu yi mbaam noonu muy def muy ŋaax buy ŋaax ŋaaxam googu doon loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko lool kuy wax ci kaw nag da ko nuróole ak ŋaax ci mbaam di ŋaax moo tax mu ne ko del del moytu loolu kon yooyu moo mooy dénkaan yi nga xam ne nekk nañ ci yetti laay yooyu loolu kon moo fi dikkoon ci ay laaj nu doon leen jéem a tontu ci sunu kem kàttan di jéggulu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu